sunu kilifa gu mag muy général de corps aérien Birame job daf ñoo joxoon ndigal ndigal li mooy lan dem Kër Massar nan lañ mana a jàppalee askan wi nga xam ne mbënd mi sonaloon na leen lool ci weer yi ñu génnoon waaw bam ñu ko waxee nag euh, dem nañ gis kilifa yi fi nekk muy euh, maire bi ak euh, autorité administrative comme préfet ak sous préfet bi ba waxtaan ak ñoom ànd nañ ci la nga lañ bëggoon def li bëggoon def mooy lan mooy ñëw indi sunu participation li nga xam ne moom la ñuy jàppale askan wi mooy ñun wàllum paj lañ leen daal si lañ leen di jàppale. Euh, askan wi soxla nañ ko lool ndaxte bi ñu tàmbalee ci suba ba léegi gis ngeen nit ñi ni ñu ni ñu ñu ngi toog nii euh, macha allah lu mat juróomi téeméeri nit gis nañ leen ñu bindu rien que bi 9 heures di jot rek juróomi téeméeri nit bindu nañ ngir faju waaw te yaakaar nañ ne fii ak euh, ëllëg incha allah bu ñu pare. ah du ma ne junne ña junneek juróomi téeméer daal waaye dinañ ko jegeñ Kër Massar boo xoolee ñetti weer ñeenti weer yu ñu génn ci biir nawet bi nekkoon na béréb boo xam ne mbënd mi sonaloon na nit ñi lool ba nga gis ne kilifa yu bëri ñëw nañ fi ngir saytu nan lañ mën a jàppale askan wi. moo tax ñooñu ba ñu defee la nga xam ne moo jàmpoon ci jamono yooyu mooy dindi ndox mi ak nit ñi utal leen fu ñu nekk jamono yooyu ba loolu nga xam ne sotti na ñun bi ñu ñëwee dañ ne dañuy xool fan lañ mën a jàppale nit ñi wallu euh, muy wàllu santé looloo tax ñu jàppale Kër Massar mën nañu wax ne daal comme Kër Massar ñoo gënoon a sonn moo tax ñun itam ñu ne ndimbal daal dafa da koy jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo te jamono yi yaakaar nañ ne ñoo ñoo ko a yelloo